Bonsoir. Le match a débuté entre Laïsé Yakar et l'AIC Guigui. Guigui en zone. Laïsé Yakar en vert et blanc. 0-0 pour l'instant. Corner euh, concédé par Laïsé Guigui. Corner très bien tiré. Attention. Nous avons éliminatoire euh, direct euh, de la phase huitième de finale des Navetan, zone 9 de Joal Lut. waaw tey match bu nar a neex contre attaque avec Lamine Sall numéro attention contre attaque paas na ko na ko orientation bi dafa bëri bal daa bëri si tànk yi ba léegi ba léegi gardien bi nee na leen concentré wu leen waaw ba léegi jeexagul ba léegi jeexagul ballon directement sur le gardien dégagement arbitre àtte na milieu terrain ñoo ngi euh, on sent que milieu terrain est trop yaraax passe profondeur bi waaw ah, il a très bien vu mais je crois que ni euh, bu bal bi demoon sax hors-jeu nekk mais ba léegi ba léegi tous y a rien tout y a rien tout attention waaw ba léegi rek ballon pour Laysa Yaakaar récupération de la défense par Modou match bi nag ba ma ba nga xoolee depuis le début c' est yaakaar kii yàlla monopole du ballon pour l' instant gi euh, dañoo dañuy dañuy seetaan Lamine attention retrait na bal bi attention dugg na bal bi dugg na but pour l'ASC Yaakaar un but à zéro un but à zéro pour l'ASC Yaakaar gis ngeen bira un but à zéro pour l'ASC Yaakaar contre guy gi un but à ngi wax Lamine de def passe de bi léegi li mu rafet quel magnifique geste Je koo retrait Je vais pas Je biir caax yi macha allah très bonne combinaison je vous l'avais dit maa noir naan mais Yakar moo yor le monopole du ballon depuis le début du match. Match 1-0 euh, pour l'instant, Yakar avec les moyens blancs et euh, l'AIC Guigui avec un euh, moyen zone. On va poursuivre Guigui avec le ballon. encore, puis le Diaron Sank, attention au tank, attention Balégui, attention Balburier, non, c'est tanki. Balbang donne traîner Sank. waaye yaakaar yaa ngi doon di ñëw di yëngal match bi neex na match na <laughs> ay waay ambiance arbitre nee na le La deuxième mi-temps entre l'AIC Yakar et Gouy, 1 but à 0 pour l'instant. et Yakar m'ont mené 1. Attention, contre-attaque. La bonne sortie du gardien. Arbitre, ça a sifflé hors jeu, mais ils ont laissé couler. Nderi, Franck Nderi. Allez, on a pas de possibilité. On joue. Attention, vous donnez ce qu'il y a de Centre de balle. égalisation de Gouye Gui Habib penalty Habib penalty Habib penalty penalty am na fot na bal fot na bal bi fot bi leer na nañu arbitre fot na bal bi yaa penalty bu yàbbee ñu dem attention le penalty de l'ASC Gouye Gui pour l'instant c'est un but à zéro entre l'ASC Yaakaar et l'ASC Gouye Gui par le capitaine la fois passe de Koraton dugal na bal dugal na bal bi plante yi passe da ko raté won si euh, phase coupe mère bi passé mo ngi jégalu bu baax instant bi 1-1 guy égaliser égalisé na guy égaliser deuxième mi-temps bi très tôt sank minutes leen ko don wax ci fin euh, deuxième mi-temps bi guy dafa yor le monopole du ballon pour euh, juste égaliser donc stade bi yëngatuna été gars yi 1-1 pour l'instant. On va nga le match mystique. le match est mystique le match est tellement mystique avec des morceaux rouges et blancs tekki nañ ko pour l'instant guy dafa mel dafa ñëw pour gagner ils ont changé de tendance. avec tout le musique lii si arbitre arbitre bi war nañ see wax li war nañ see wax bi ñuy jël ni kese parce que les joueurs doivent jouer tekki nañ euh, seen morceau yëpp waaw match bi débuté waat na 1-1 partout 1-1 partout guy gi changé nañ seen tendance nañ aussi leur manière de jouer changé aussi euh, euh, tactique parce que boo dee xool ils ont très tôt marqué si deuxième si début deuxième période bi. bureau bi entre Laysé Yaakaar Laysé guy gi match bi 1 bi partout c'est Laysé Yaakaar. qui, est, qui a mené le premier but au premier mi-temps ASC Gouye Gui ñëw égalisation sur un penalty très tôt puis vous avez dañ ko dugal pour mieux préparer les séances de tir au but waaw ba et ça bi yëpp nee nañ lekk supporter yaakaar ñoo ngi tëgg Yakar mo ñu yaakaar moo njëkk a dóor euh, première penalty première kartam arbitre sifflé na arbitre sifflé na yaakaar moo njëkk a dóor premier penalty première tir première yaakaar frappé par euh, Gambie le numéro 8 attention oh raté bi yaakaar saraxe na première kartam raté na première balam attention jaakaar yaakaarate na premier pénalty euh, sànq euh, on est soo soo leen seetloo di ngeen dégg seen liggéey doon wax naan bal bi dugg na mais euh, duggul si limite bi la tege. premier tir pour se Gouy gi numéro 8 encore mooy dóor sànq numéro 8 moo dóor numéro 8 mooy dóor militaire militaire oh daaj na gardien bi contre rafet na. gars yi nawetaan yi boo leen seetloo équipe bu en général équipe bi féetee côté bële fee fee Gouy Gui fu zone yi nekk. en général équipe bi fa féete yëpp di ñoom ñoo gagné donc loolu ñu siy bàyyi xel parce que ñun ñoo ngi koy seetlu boo xool sax sànq ñoom ñoo ngi ko doon xëccoo ba match bi jeexee waa yaakaar njëkk nañoo toog côté bi mais guy gi dañoo ñëw gën leen féetee côté bële deuxième euh, penalty pour l'ASC euh, Yaakaar pour l'instant 1-0 attention deuxième tir pour l'ASC Yaakaar à ne pas rater oh naawal na bal ba naawal na bal ba naawal na moom sax waaru na moom dafa waaru naawal na bal bi ay waayi moom mi ko naawaan sax dafa waaru gëmeewu ko ba léegi xamul fan la bal bi jaar ay lii lan la c'est le capitaine de l'ASC Gouy gi kii vient tirer euh, deuxième balu Gouy Gui espérons que mu bañ koo rate espé euh, waay waay waay yaakaar si ñoo ngi espérer mu rate ko donc capitaine dafa war a xàll yoon bi loolu la waa Gouy Gui di espérer si waa yaakaar bëgg mu rate arbitre sifflé na attention à ne pas rater ce raw gàddu gaa ngi nii raw gàddu baa ngi attention attention attention rafet na capitaine bi wane na yoon bi capitaine guy wane eh, pour l'instant c'est 2-0 2 buts ku si nekk dóor nga 2 tirs gardien bi nee na ne joueur yi taxaw moom mooy dóor Seny Gueye nee na taxaw mais Lamine Seny Gueye nee na taxaw mais Lamine bañ na Lamine nee na ko maay dóor ñoom ñaar ñoo ngi concerté wu ñoo ngi concerté wu ah non bañul ah bañ autant pour moi da doon jox ndox bi da ko doon jox ndox bi da ko war a toj ci wóotu bal bi comme niñ ko fiy gisee saa su ne Seny boo ko ratee musiba naaru laay dal la boo ko ratee Moussima lay 3 troisième tir de l'ASC Yaakaar il ne s'est pas préparé seeni dafa tourner rek ñëw dóor il ne s'est pas préparé attention raté na balle. bi raté na bi il ne s'est pas préparé je vous l'avais dit dafa tourner rek dóor seeni préparé wul dóor bi le gardien lui a montré que paré wul man pare naa gardien guy gi nee na ko boo parewul man pare naa jàpp naa sa balle je suis le meilleur attention c'est le milieu de terrain de qui frappe le troisième tir. Beaucoup Dougalé gagné. Dougal gagné. Beaucoup raté aussi, on espère que ça va se tourner en rond. Attention. Il a joué un match correct. Attention à ne pas rater ses pénalties. Attention à ne pas rater ses pénalties. Il a fait un match correct, le numéro 3. Attention. Oh, raté On collègue. raté. raté. Ça va se tourner en rond. Attention, il donne de l'espoir à l'IC Yakar gars un am nañ fu japp na gardien bi aussi ne comme moi aussi je suis un meilleur mentalement C'est l'homme C'est du match du premier mi-temps l'homme du match du premier mi-temps là, il a fait un passe décisif et joué un match correct au premier mi-temps mais au deuxième on l'a plus vu c'est lui qui frappe. qui va frapper, il va frapper euh, le quatrième tir, quatrième tir de l'ASC Yakar. Il a pris son élan. Attention à ne pas rater, na Yakar am ben. Attention à ne pas rater, Dougal Noko. Dougal Noko, c'est un buteur il l'a fait moo ngi jox gars confiance moo ngi jox waa yaakaar confiance mais il paraît que ba sont mouillés Ils waa yaakaar yi ñoo ngi noppi di déglu ànd ak espoir ils yi arrêté na ñëpp a ngi déglu. le quatrième tir de l'A.I.C... Euh, de l'A.I.C euh, Guigui le quatrième tir le quatrième tir bu ko raté moom tamit day jox espoir à yaakaar attention à ne pas rater ce ballon surtout à ne pas rater ce ballon. jàpp na ko seeni jàppaan na bal bi. joxna len espoir bi ma ko waxee woon sànq jox na espoir et sans seen i benn ko dessé mu jabu pour revenir au match le 4e tir mais ba légui dessna ba légui dessna seni jabu na deux balles encore il a montré qu'il est le meilleur mentalement malgré que raté na sànq gars yi raté nañ trois tirs ba légui am nañ mental bi force mental bi waaw c'est incroyable. Ouais, le cinquième tir, Bougarate aussi, c'est crucial à ne pas rater. Le cinquième tir de l'AIC Yakar. Frappé par le capitaine. Capitaine Guigou Dougan, capitaine Bimosi Dess. Oh, gardien bi japp nako. Jeex na Guigui gagné na. Guigui gagné na. Le capitaine de Yakar rate na balle bi. L'AIC Guigui a pris le dessus contre l'AIC Yakar. Vous voyez vous voyez ñoo ngi maye mandarini sandi nañ pomi li desone ci sarax ba nek ni ñuy sandi li desone ci sarax bi mo nek ni ñuy sandi wa match bi néna trop Guy Gui a battu euh, l'ASC Yaakaar par séance de tir a raté deux penalty Yaakaar a raté quatre penalty gars yi la Yaakaar gagné quatre penalty quatre penalty la waa Yaakaar gagné Yaakaar éliminé en huitième de finale navétane